mbokki internetu Mak TV euh, Sénégal nuyuwaat nañ leen euh, ñëwaat ak yéen nag ci communiqué bi nga xamante ni moo ñu dàpp ndikki euh, léegi nii rek mu soxal nag li nga xamante ni moo di activité nawetaan yi fii ci commune bu Hann bel ci communiqué bi nag ñu ngi si daal di xaatim ni li nga xamante ni moo di championnat populaire yi fii ci commune bu Hann bel moom daal nañ koy arrêté définitivement loolee nag sous préfet nag sous bu Grand Dakar nag moo ko rek daal di xaatim moom nag bu ñu sukkandikoo ci li nga xamante ni moo di euh, communiqué bi moom nag lim si rek daal di bind mooy que ni dañuy rek daal di moytu li nga xamante ni rek moo di risque à trouble à l'ordre euh, public loolee nag tax mu daal di interdire euh, définitivement li nga xamante ni moo di compétition populaire yi fii ci an bu fii ci commune bu Hann Bel-Air nag am gannaaw nag ba nga xamante ni nemmeeku woon nañu ay quelques instants daanaka ci troisième journée bi rek ñu daal di génn kon nag ñu jàppandoo ko rek ñu jàppandoo ko gisandoo ko comme ni nga xamante ni moom la ko lii di article bi daal di bindee activité navétane fii ci commune bu Hann Bel-Air atub 2021 fii nag lay daal di yemani ñuy xaar nag ndaxam dina am yeneen intervention yi nga xamante ne si daal di judd ndax kat nañu fàttali rek ni li nga xamante ni moo di euh, championnat populaire yi di euh, navétane daanaka xaalis bu takkoo takku si ñi nga xamante ni moom la si ay sey di rek daal di def comme ñu xool ndaxam dinañ ko mën a eggali ndax rek lii nga xamante ni moom la préfet bi xaatim dañ koy rek daal di appliqué wala sax nañ amal ay intervention wala ay médiation pour rek ñu bàyyi ndaw yi ñu daal di euh, continuer li nga xamante ni euh, moo di seeni ay activités comme ni ko yeneen communes yi dafee fii ci biir euh, Sénégal